nañ fii tey comme niñ ko xamee ñëwoon fii ànd ak bi nga xam ne moom am la ànd ak ñëwoon tey ci laylatu katmiya bi nga xamante nii suñu bàyyi Thierno Hassane dem moo ko daan xewal fii ci saalum ñëpp xam ko mu nekk loo xam ne tey foyer yu bari ci biir Saloum dañ koy def ñu ñëwoon fi tey teew fi ànd ak délégation bu mag ñëw fii ñëw teewal fi président Macky sàll ñëw indi ziaram ak ay ndokkeelam ak jàppaleem ci li nga xam ne moom lañ ko xamee ci mbooleem foyer religieux yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi fu fi nit mas soxla wala fu mu mës soxlaa dara rek loxoom ak ndimbalam ak taxawaayam dem na fa ba nga def li nga bëgg a def comme ni nga ko bëgg defee loolu moo tax tey ñu ñëpp ñun ñëpp àndandoo ñëw fekkale ko fekkele si bis bi ci ndigalul président Macky Sall ñun en tant que ay doomi julit waaye en tant que ay doomi daara ñu ànd président boo xam ne lépp li nga xam ne mébal la wala bëgg-bëgg mbooleem kilifa yi nga xam ne ñoo tënk réew mi tey président Macky Sall def na ci loo xam ne dañ naan mu doon loo xam ne nag damay wax ne sant yàlla la parce que mënoon naa nekk ci bopp réew mi ca am na loo xam ne du ko tal wala bu ko talee itam du ko def ni mu ko defee président Macky Sall jël na bépp matukaay bi mu jëlee bopp réew mi ak bu sab tey amul benn foyer religieux bu nekk ci réew mi boo xam ne doo demee doo demee du fe doo fa fekk mu def fa loo xam ne benn chef de l'État mosu koo def ci Sénégal li may wax lu leer la dama ne li mu def ci réew mi def ko ci foyer religieux yi benn chef de l'État mosu koo def loolu moo prouvé wu fii ci Kaolack moo dem Touba ni ki démb moo dem Tiwaawoon moo dem fépp bugguma lim amul benn foyer moo dem Dakar ca Laayeen ya moo dem ci xaadir yi moo dem fépp amul benn foyer tey boo xam ne président Macky Sall def fa loo xam ne tey moo ko fa def te moom seul mooy chef de l' état boo xam ne li mu def investir ci kër kër diine yi benn chef de l' état mosu koo def donc tey dañu fier pour di dox en tant que doomi daara dañu fier di dox en tant que ay nit ñu am gëm-gëm ci tarixa dañu fier en tant que am chef de l'état boo xam ne xam na réalité réew mi xam na lan mooy bëgg-bëgg askan wi xam na itam kilifa yi nga xam ne ñu ànd ak moom di ko gunge ci réew mi lan lañ bëgg mu fekk leen ci seen bëgg ba li nga xam ne seen tële la mu deftal la yoo xam ne mënuñu ko loolu ñëpp seede nañ ko wax naa démb ci Touba ma ne lii Serigne Mountakha Bachir wax Serigne Bassirou Abdoul Khadre nga xam ne mooy porte parole bi wax ko loolu kum doy dara du la doy lépp li nga xam ne war nga koo def def nga ko lépp loo xam ne xaaruñ ko woon ci yow sax def nga ko loolu dama ne duñ def ñun lu may sant yàlla bu baax nag mën a dox bu baax ci biir réew mi siggi parce que kat bu ñu yàlla boole loon ak chef de boo xamante ni xamut. réalité réew mi wala xamut kilifa yi wala joxu leen seen àq wala xamut ne askan wi lii mooy seen bëgg-bëgg mu fekk leen ci foyer yi nga xam ne moom lañ jëm mu jàppale leen mën naa am tey daagu bi ñuy daagu nii duñ ko man waaye tey dañu fier di dox ci turam dañu fier moom mu nekk suñu chef dañu fier mu jiite réew mi doxal ko ba indi ko fii tey duñ def lu may sant yàlla ci loolu.